jono Yon di gejel di fiwa Yon di nyamu mulu Omul di di dogan Yon taman ba tey ci seen scandale du jour Abdoulaye Ndiaye kaddu yu mu yëkkati daal di koy jëmale ci marchand ambulant yi moom nag xamle na ni da leen yërëm waaye nag ah yërëm leen tamit nag est-ce que du du du du doon hypocrite benn côté parce que ñoom ñoo ñoom ñoom ah baax na ñu déglu ji Abdoulaye. woo ndaw ñu ne génn leen. ne taal leen li am ci réew mi yëpp. gatsa gatsa suñ ko taalee man su ma ñëwaatee projet bi day defal Sénégal. Mhm. léegi projet bi mu ñëwee daf leen dund gi mënu ma ko wàññi parce que yokku ma ko woon. Mhm. ndaw ñi ne woon ci réew mi sonnal ko. nga xam ne ñoom ñoo doon xëllantoon ñun marchand ambulant yi ñoo doon taal ñoo doon def lépp marchand ambulant yëpp la jëlee ci mbedd mi tey boo ñëwee ci dëkk bi gis ni ñu ramassé borom cag-cag yi da lay metti ak borom borom cag-cag yi parce que boo demee Sine ak dëkk yu développé am na cag-cag bu toppi woon président Macky Sall muy njëkkante mooy njëkkante parc industriel yi jeex centre formation professionnelle yi ñu yebal ndaw ñi mu def ay forum mais accéléré woo parc industriel yi. Mm-hmm. ba xale yi nii ñu leen def ci borom cag-cag yi nga ne ñaaw na. Mm-hmm. tey na d'accord naa ñu ne voie publique yi nañ ko libéré mais dañ ne la xale bi boo koy jëlee fii dem président Macky Sall loolu dootoon na ci lu am solo man ci commission bi ko doon piloté ci laa bokkoon. Mm-hmm. bi Sahara Eyane Thiam microfinance président Macky jël na ñun waa ASCODEM ak commerçant yi nekk Dakar dénk ñu jox génneel ñu financement un séddale nañ ko ci Dakar ñaari marché Wakaam marché Wakaam marché un. ak marché deux. ñoom ñaari marché yu benn bu nekk jot na 10 millions. commerçant yi ñu ko jox ñun xamuñu carte carte xamuñu ban parti lañ bokk. délégué marché bi la ñuy tijjiloo compte versé ci compte de marché bi 10 millions compte boobu ñu tijjiloo wàcce ñee compte ba pare defal leen ay inter euh, ay bor yoo xam ne amul intérêt bu ñu jeexalee président Macky Sall keroog bu ñu toogaat ak moom 500 personnes lañ ci biir Dakar mu génne laat ñu benn fonds de 3 milliards tey modernisation des marchés ambulant ñu jóge fii. fekk na président Macky Sall defar assurance promosène ci dix yi nga xam ne ci ma def déclaration politique générale mu ngi ci yoo xam ne xam nga fan la jëm. ci moderniser des marchés. man mii di wax ak yow bi ñu defee lancement plan bi man maa suggéré ne plan bi nañ ko def souterrain pour centre stockage yi ne ci suuf. ci da dal yi fi mujjee nañ ko def énergie solaire. ba marché bi am autonome ci wàllu courant. ça veut ñoom dañoo nekkuloon ci biir marchand ambulant yi ñu ngi jooy mais ñoom ñoo jël yat bi dénk ko ki di ñuus kon foofu amul problème jeunesse baa ngi jooy ñoom ñoo jël yat bi taay ko nag bu mu gudd ba pare sewal ko nga xam ne bu la ñuy cuy sa rongo fu ñu munti nekk ci sa yaram day génn ñu jox ko waa ji ba pare écartel ko yoon bi na ko taxawal fii ñun ñu ngi nii caw ñu caw ci caw sa hir waa lol la len nek di def gisaguñu dara ko waxal ci pet ah man kay ñuy bay legi man mom ah sénégalais fo dégg moy lolou xamal ni yaakaram tasna. ñun sénégalais fo ñu dégg ñu wax ah moy lolou yaakar tasna. c'est fini il y a plus d'espoir à moins de 4 mois 5 mois amatul espoir koo waxal ci pët sans caméra sans micro yéen ñaar kese te mu leeral la ni kii ñii la àndal ñii la doon da doon xataraayu di rayante ndax ñii boo nekkee ak ñoom ci pet xam lu ñoo wax li ma gis nii jëmul kër de ma gis nii jëmul kër de wallahi azim boo ko waxee na ñu ne la noo dara doxul dara doxul daa da da da ra ra ra doxut te sénégalais bu demee ba ni mooy loolu xamal ni yàqule na c'est foutu et malheureusement malheureusement pour nous dañ ko teel a wax sax très tôt amaguñu un an organi organisé wuñ ci benn élection defaguñ fi benn inauguration satellite bi inauguré wuñ ko Macky Sall ko inauguré woon te boobu ñoom taluñu woon loolu ndax daray Macky saful leen woon ñun nag safoon nañu parce que réew mi moo ñu intéressé woon kon xamoon nañ ni 2024 satellite bi danañ ko gis mu jolli ca kaw ñun Macky waxoon nañ ko les sénégalais ñi nga xam ne Macky intéressé wu leen mais c'est le Sénégal ki leen ki moo leen daan intéressé c'est le développement du Sénégal moo leen daan intéressé maanaam vision bi ñeneen ñi di am concernant notre pays le Sénégal ñooñu xamoon nañ ni satellite bi Macky Sall annoncé na ko depuis ba ñu wax ci ñoom tey ñu bëgg a jël loolu mbuboo ko naan waaw mais c'est extraordinaire li ñu li seex naan potu meew potu meew dafa góoleen ko ci réew mi potu gëlër ya indee góoleen ko ci réew mi il faut mu dugg seen nopp il faut arrêter de manipuler les gens yéen di ngeen inauguré ba deux mille vingt neuf te loo leen inauguré fekk Macky inauguré yéen da re inauguré ngeen di def BRT bi re inauguré ngeen di def ndax Macky testé woon na ko fii la ñu fekk au mois de janvier fii la fi fekk hmm? beneen bi ci topp terre bi Macky inauguré woon nañ ko stade yi Macky inauguré woon na ko loo leen fi laal rek Macky inauguré li ngeen di a dégg Macky inauguré woon na ko yéen dafa leen fi daara yéen benn xeer bu ndaw sa posé goo leen ko ci yéen béton sa dafa leen ko fi te nag jeunesse bi koo waxal mu ne la ah mooy loolu mooy yaakaar bu tas ci réew mi ñun sénégalais mooy loolu mooy yaakaar bu tas garaawul quoi c'est grave ablay man en ambulant yi ak jeunesse bii ah sama yërmande ci ñom du bëri de du xóot de et ça sera pas sincère parce que ce sont eux les véritables responsables ñom lañ ñoom ñoo diaboliser ñoo xaste ñoo wax lépp. You're the girl you feel right, but you got no